rahli sadri wa li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ta'ala wabarakatuh. barakatuh syekh al-hajj ahmad al-tijani ibrahim anas nangi yekati sunu kaddu ci turu serigne cheikh abdullah hat mbake mom serigne cheikh mbake gayna fatma ñu andal mu waxoon ne suñu ñëwee nañ leen présenté délégation bii nga xam ne moom lañ présenté léegi te kilifa yi ñu tudd bokk ci di ay nawleem di ay mbokkam di ay xaritam di ay wëllëreem itam ak taalibe yi ak seex si nga xam ne ñoom itam ñoom la àndal ak taalibe yi waaye jottali itam ay nuyoom waaye nuyoo yoo xam ne dafa jóge ci moom dafa jaar ci moom waaye mën nañ ne ci yoonu murid gépp la jóge ndax poroxaan la jóge nii ci Cheikh Mamadou Mountakha ayyadahu Allahu wa nasara ci bis bu rëy bi nga xam ne moom lay waajal fan yii mu demoon fa démb ziyaare ji ko fanaan fa euh, tey jii mu ñëw fii démb la ko daan def sax waaye xam ne ni ngeen ko xamee euh, bis biñ doon defal Maulana Cheikh Ibrahim Niass té doon ko tay ba Niassène taxon na mu xamné ne yi ngeen euh dana xat lool mu ñew fi démb lool mo taxon bi mu joggé Porokhane mu ñew fi ngir mot li yéeneem sëriñ bi nak néna mi ngi lay di nuyu bu baax di leen sante bu baax itam ci taxawaay yi di am mbégte lool nag waxtu wu ñëwee fii ba jataayoo yow jataay bii nga xam ne gàtt gi rek moo ko ci naqari ndax lu mu gën a gudd rek xolam di gën a féex xelam di gën a dal yaakaaram di gën a yokk ngir xam gum xam ne loolu dafa bokk ci liy ñoŋal di dundal jeexit yi nga xam ne mag ñu baax ñoo ko rabatoon ñoo ko boole woon ñoo ko nosoon ba lépp ne coow di lu jub lu yàlla gërëm nee na waajuram wa sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke daa waxoon ci dénkaane ne fa inna alal xalafi an yasuna asara salafi ko wóotu ku ne la la war mooy ñoŋal jeexiti ka nga wóotu nee na loolu du ndonoom dénkaan la luñ leen dénk ñu war koy doxe jamono ju ne ndax bu doon ndono la lu leen neex def ci bu leen neexee jaay ko bu leen neexee may ko bu leen neexee sànk ko bu leen neexee réeral ko ndax ñoo ko moom waaye nag loolu dénkaan lañ ko jàppe ndénkaan nag dafa laaj delloo ndax liñ leen jox ñoom jàpp na ne ñi leen ko jox dañu leen ko dénkoon ba ñoom ñii ñëw ñu ñu ñu delloo leen ko kon ñoom itam ndénkaan yi dañ koo fas yéene sàmm ba keroog ñu koy ñu koy delloo sëriñ bi nag nee na tànki tayam yi itam ak jataayam yi wuutalewu ko ak tànk ak jataay yi nga xam ne ak Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ak Maulana Cheikh Ibrahima Niass daanañ ko am seqoon ko bokkoon ay bëgg-bëgg bokkoon ay yéene bokk pas-pas dëppoo ay xalaat ci gisuñu diine woo xam ne àdduna du ko weesu mooy boole jullit ñu nekk benn islah sati bari fexe ba jullit ñi fu ñu mën a ne lu ñu sori sori lu leen ay frontière xajale xajale lu leen ay couleur xaajale xaajale lu leen ay làkk xaajale ñu fexe ba ñu yëgoo di diisoo di dimbalante te yàlla rek tax nee na loola ñoom def nañ ca li leen ci war bàyyi nañ fi jeexit woo xam ne itam ku bëgg a topp ca yoon woowa da nga am lu leer lu fës lu gër ne lii mooy dëkk nee na loolu nag moo tax jataayam fii da koy yàkkamti tey du yàkkamti du fi yàkkamti jóge ndax loola rek lay delloo si ci xelam mooy lii may def day ay mag ñoo ko daan def ba bàyyi na fi kon li ma war war ku ne ku mel ne man mooy loolu nga di ko dundal te di ko suuxat nee na ñoom ñaar nag dañoo nekkoon ñaari nit ñoo xam ne dañoo gëmoon yàlla waaye dégg diine itam dégg diine lu am solo ci ab jullit dégg diine lu am solo la ci jullit moo tax ñu xamoon ne suñ boroom kat moom moom lu ne ku ne moo lay seet du tàggu kenn nit buy sédd kenn ci coobaram na koy defee ñu amoon xel mu dal ci ku yàlla sédd ku ne ñu nangul la cër ba te yéene la ko loola nag mooy li sëñ Tuubaa waxoon rek ca Masaalikul Jinaan wala tuxassis fadla rabbin qat ala bi di taxaddumin faqat fa tajhala iso bama maa xaaba amman qabluhu wa asura fa tallu قد يبدو أمام الوبل فالفضل للوابل لا للتلي فلا تناس حين نظمي يصدري نص حديث أمتي كالمطري يعني يرتبي صلى الله عليه وسلم دفعوا خنة أمتي كالمطر سما خير من التو خميس التو بينك واتي بسخال غانجح التو taw buy muccee wàcc di ñoral gàncax bi bu ci gën ñoom loolu lañ gëmoon ñoom ñaar xamoon nañ ne ñu fi juutu ñëpp yàlla leen may waaye ñoom itam waruñoo des gannaaw yàlla ma doon maye mi ngi fi lam doon maye xaajut yënguwut kon ñoom itam dañoo war a sóobu te ñaan suñu borom incarné ko te it loolu suñu borom defal na leen ca nee na loolu nag moom la ñëw fii di ko feddali di ko dëgëral ci yéen di leen sant bu baax ci toogaay bi ngeen toog ndax moom nituk information la te nee na jamono ju ne mi ngi gëstu. mi ngi yuundu mi ngi xool euh, mi ngi seetlu mi ngi informé wu waaye li muy xam lépp mu jóge fii ci yéen wala mu jóge ci seenu njaboot lépp lu mu ci doon diine rek lay doon diine rek lay doon ju dara dox nee na loolu nag kilifa diine su meloo noonu ak njabootam mel noonu jaadu na képp koo xam ne loolu xam nga ko ci moom nga seereel ko ko du seereel ko ko ngir mu bégte waaye ngir seereel ko ko rek ba mu xam ne liggéeyam bii muy liggéey am na résultat nee na loolu rek la ci jublu nee sant na bu baax nag gërëm na bu baax mu ngi la ñaanal yàlla itam seen jataay bi yàgg lool seen jataay bi yàgg lool te ànd ko wér te nee na loolu yàlla ku ko man yàlla mën na ko lool te ñaan itam mi ngi koy yaakaar ci yéen ndax